الحمد للحق المبين من كونه ليبي على الكتاب المستبين ما جميع النعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima mbokki jullit yi mbokki talibe yi mbokk yi topp Mouridis TV asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nu ngi leen di nuyu nuyób jullit ak mbokkum jullitam di leen nuyu nuyób taalibe ak mbokkum taalibeem di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi te dëgëral ko ba mu li ay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal xaadimu rasuul dama ànd ko mbooleem njabootu Serigne Touba gépp noonu lan koy ñaanale mbooleem kilifa dina yi mbooleem jullit yi ak taalibe yi di ziyaare bu baax mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci seen émission bi nga xam ne moom la duppee jataayu sëriñ bi ngeen ci ànd ak seen mbokkoom taalibe Cheikh Ndiaye Gana nu fas yéene di ak yéen ci suñu beneen tomb waxi sëriñ bi ci ndigal yi ak tere yi inna akramakum indallahi atqaakum sadaqallahu alazim borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax ci ne ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën ragal yàlla dafay mel ni bare na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy jaawale ki gën a tedd ak ki gën xam ngeen ne jamono bii nuy wax ak yéen am na benn série théâtre du daw ci benn site ñu koy wone xeet yi ñoo gën askan wi ñoo gën ñii ñëw gën a xeebu ak ñii ñoo gën a kawe moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla am amma jëm mi ngëneel nag inna al fadla bi yadillahi yutihi man yasha borom bi subhanahu wa taala dafa wax ne jëm mi ngëneel nag mu ngi ci sama loxo man yàlla maa koy jox ku ma neex sëriñ tuuba qaada lahu allah maxtaara lahu mas naa wax ndax xam ngeen imaan ak islaam ak ixsaan ñu ne ko dégg na nu ñu di ko wax sëriñ bi ne imaanu moo di lépp lu am nga xam ne yàlla ko dogal al islaam moo di lépp loo am nga génn ca wàllu yàlla ihsaan moo di lépp lu mu dogal mu neex la wér na lool sëriñ tuuba xaadalahu allahu maxtaaralahu xaaj yi mu wax di imaan ak lislaam ak ihsaan lu ci nekk sëriñ bi dañoo wax lañu ca gën a yitteel kon li ñu gën a yitteel ci iman moo di gëmub dogal li gën a yitteel ci lislaam moo di joxe sa alal li nu gën a yitteel ci ixsaan moo di gërëm yàlla tabaraka wa taala wallahu aalam sëriñ tuuba qaadalahu allahu mas naa wax wafaalul xayra nu ngeen koy firee ñu ne ko wafaalu na ngeen def aw xayra alxayra aw yiw sëriñ bi ne ñan ñoo koy def ñu ne cell kenn waxul sëriñ tuuba qaadalahu laahu maxtaaralahu ne wafaalu juróom-ñaari xaraf la alxayra juróomi xaraf wax ne juróom-ñaari cëri doomu aadama yi lañu wax ne tax leen ci juróomi ponki lislaam yi te bu leen ko baax wér na ponki lislaam ñoo di wax laa ilaha illallah ak julley juróom ak joxe asaka ak woor ramadan ak xaj makka boo ko mënee wallahu aalam sëriñ tuuba qaadalahu allahu maxtaaralahu mas naa wax ndax xam ngeen waajib ak manduub ak mu baax ñu ne ko noo ngi dégg ñu koy wax sëriñ bi ne xam ngeen luy seen waajib yéen ñu ne ko déedéet mbakke sëriñ bi ne moo di wàcc lal yi te dem ci der yi jaamu yàlla ndax xam ngeen luy seen manduub ñu ne ko déedéet sëriñ bi ne moo di wàññandiku ndamu ba ñu ne démb la woon bis ndax xam ngeen luy seen mu baax ñu ne ko déedéet sëriñ tuuba qaadalahu llahu maxtaaralahu ne dara dara dara ne dënn ba mu yàgg mu ne dara ju njëkk ji moo di sunu boroom subhaanahu wa taala mii nu bind ku xam ci moom dara doo def lenn lu muy tere ndax moom borom bi subhanahu wa moo boole xudratu ak iraada te bu yëkkatee yaram ba kenn du ko tere wax ne dara ji ci topp moo di àdduna ji mu nekk te xalxaf te jóge ku xam ci moom dara doo ko jox sa dara ndax loo ko jox ñàkk ko sëriñ Tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahoo ne dara ju mujj ji moo di àllaaxira ji nu jëm te di fa sax ba faw ba faw ba faw ku xam ci moom dara doo fa dawal dara ba naw ko ndax dara du fa doy wér na lool xudratu baatu arab la ñi ko xamul mooy kàttanuk borom bi subhanahu wa taala nga xam ne ku amee kàttan mu ngi bàyyeekoo ci biir la muy kàttanuk borom bi iraadatu ba tey baatu arab la ku ko xamul moo di nammeel gi nga xam ne sunu borom lum namm noonu la koy defee moo tax muy faalu ma yurid yafaalu ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir dawal maanaam moo di jiital wallahu aalam am na koo xam ne dara def bu toogee fi sëriñ Tuuba xaadalahu allahu maxtaaralahu di bind fi suuf kun fa yàkkoon di bind kon fa yàkkoon am bis sëriñ bi jàpp ci waggam maanaam jàpp ci mbaggam ne ko min xusni islaamil mar'i tarkuhu maa laa yahnihi boo mënta ñàkk bind del bind alkazibu xaraamun wal aybatu xaraamun wa namimatum kazalika wér na min xusni islaamil mar'i ab xadis la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko wax moo di bokk na ci li rafetal lislaami nit ki bàyyi lu ko amalul njariñ xadis bi bari lu ko sëriñ bi daa wax xadis bi man kaana yuminu billahi wa yawmi al axir falyaqulil xayran aw liyasmut borom bi subhaanahu wa taala nee na képp koo xam ne gëm nga yàlla wala yonente bi alayhi salaam nee na képp koo xam ne gëm nga yàlla nay wax ci aw lamañam aw yiw wala mu noppi man nag seetlu naa ne ñaari xadis yi boole nañu daanaka léppi tasawuf yàlla nañu sunu borom defal ak dégg ak topp alkazibu maanaam moo di sen xaram na jëw lu xaram la ndaka noonu rambaaj lu xaram la wallahu aalam sëriñ tuuba xaadalahu allahu maxtaaralahu nee na sunu borom subhaanahu wa taala bi mu waxee laa ilaha illa ñépp dañoo gëlëm ndax xamuñu nu ñu koy jaamoo te xamuñu dëgg-dëggam mu ne muhammadu rasulillahi maanaam moo leen di wan yoon wi ngeen may jaamoo daa di wax yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wal barak yaa ayyuha rasul balligh yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wal barak jot li ne lu war ak lu ñu sopp ak lu dagan te am njariñ ñoo di yooni ajjana lu xaram ak lu ñu sib ak lu dagan lu yàq ñoo di yooni sawara teg ca wa ma aatiikum rasulun fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu wér na lool wallahu aalam am na ku ma sa wax sëriñ Tuuba xaadalahu allahu maxtaaralahu ne ko dama bëgg a doon boroomi may sëriñ bi ne ko bindal mooy mu bind ko sëriñ bi ne ko tàllalal maska gi mu tàllal ko muy may sëriñ Tuuba qaadalahu laahu maxtaaralahu ne ko ku bàyyi lii lii ñëw wér na lool maanaam ku bàyyi di moy borom bi subhaanahu wa taala yàlla di la sotti ay xiwalam moo tax sëriñ tuuba qaadalahu allahu maxtaaralahu di wax ci bayit wa wasiyatun tukassiru ataaya li kulli man yajtanibul ataya wallahu aalam mbokk yi dañuy taxawani foofu ci tomb bi nga xam ne moom lañu ñu andi tey muy ndigal ak tere yi ci dénkaane yi sëriñ bi ngir bañ a guddal waxtaan wi di leen jox dig daje ci sunu beneen jataay ñu àggale li nu nekkoon incha allah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Salli Amen.